aji yombalkat bi amal yar ak yërmande ci waay xamlu yi jox leen sab xol te tey sa xel illa joo mën a am bu mu worook seen njariñ yéem leen ci sa xarala ak tey bañ leena a yéem ci sa doyadi ommat leen nos gu yolom ngir moytu jeexal seen muñukaay mag mëq na siim na wutal a xame ci moom bul fàtte ni lu ëpp ci sa taxawaay yombal la wante du gawaate àdduna doyal na ci ak réer xam-xama ko yitteel lambi yeew sàjj na ci àdduna sépp ku ko baralewul itam barale nelaw fi ndam du feeñe aji yombalkat bi taamu nañu nag ci yow wàkkirlu ak léeg-léeg tëx booy xàll yoon mënoo bañi xaaxaam mbaa i dëkk indil sa cafaay boole ak seenugu laax ngeen fas